yu Ousmane Sonko taxaw nañu ngir défendre ki nga xam ne moom mooy seen leader rawatina ci wetu këram wala sax li ko wër ci quartier Néma ci Ziguinchor. ñoom ñëpp benn wax ji lañ yor mooy bu ñu bàyyi kenn mu jege kër Ousmane Sonko te bu ñu wóolu kenn. looloo tax ñu daal di taxawal ay barrage yoo xam ne oto mënu fa jaar ñi nga xam ne sax dañuy dox seen soxla ku ne dañ lay xoolaat bu ñu amee lu ñuy njort ñu daal di la wax ni nga jël beneen yoon. bu jaree yokk sax ay dispositif nañ ko def te ñun delluñu benn yoon grand yàlla xam bu jaree bu jaree yokk encore nañu yokkaat ay dispositif ndax fii bu soobee la ku fi war a gël si Ousmane Sonko fa nga jaar si ñun ñun duñu sonn bu ñu leen neexee fii ba 2024 ñu ngi fii fii la ñuy yenn fii la ñuy fanaan jaral nañu ko suñu kër dañuy bàyyi suñu kër yi bàyyi suñu lépp ñëw toog fii parce que du du caagi ne jëmm gi sax mais projet bu ñu saxal Sénégal moo ñu yite moo tax ñun ñëpp ñu war a combat bi. mer gi nga xam ne moom la ñuy yéeg boole sa gis ko ci seen kanam di ay ndaw yoo xam ne ñu ngi taxaw ngir défendre kii nga xam ne moom mooy seen leader Ousmane Sonko dëgg la génn gi nga xam ne leader bu Pastef def na ko ci àllarba bi ci ngoon mel na ni source de motivation la pour ñoom. loolu kese ko gis mu xam ni que loolu soxla ñu discours juste motivation bu mu def nii il nous a motivé. wax yi bëri nañu gars yi di naan dafa daw dafa dem Guinée te yàlla xam na ni mu ngi fii donc bu mu génnee sortie bi ñëpp xam na ni ko dawul ñun soxlawuñ mu daw te ndax ñu ñëw ne bu soobee yàlla ginnaaw yàlla ñun ñun ñu ngi fii pour moom kon soxlawuñ mu daw soxlawul daw te moom du dawkat. tey jii am na juróom benn fan bi nga xam ne militant ak sympathisant yu Ousmane Sonko nekk ci biir këram ngir protéger ko. fii la ñuy lekkee seen lépp daanaka fii lañ koy defee te di bàyyi xel ci lépp loo xam ne niru na ak lu tey seen xel.